loo yóbbu kër bul di gaaw a sëngee borom kër yi ngay nag te njaboot rek kooku wane xam ni sa bay doon nga mag xam ni njaboot bu dund bala nga xam ni sa bay sonne añ reer tekki napp ci sa guur mu kaw a sëggee yàlla boo kaw a sëggee waay doxal bul gëstoo foo mën a toll loo champignon naa sama doom ji ajaay sa yaay dikk nga de la ami internaute média Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag euh, ñi ngi fii biir plateau euh, seet si ki nga xam ne mooy góor euh, Gora Camara l'international ah sénégalais basketball moom nag lañ ñëw seet si mu ñëw en vacances ñu bëgg leen wan nan lay préparer saison bi nga xam ne tamit fa la jëm ñu dugg tamit ci waxtaan gi ci performance yi nga xam ne def na ko ci jaar-jaaram équipe nationale ci jaar-jaaram tamit fi nga xam ne ay fa la nekk moom nag ba nga nekk fële ca Italie di fa basket mais avant ñuy dugg ci waxtaan bi dinañ gën a xuus ci kan mooy Gora Camara mais avant tout dañ ci waxtaan ak moom Gora gannaaw ba mu la nuyoo rek ma bàyyi la ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. Euh, maa lay fay maa ngi fay ñëpp ñuy seetaan tey ci mhm. émission bi maa ngi nuyu waa Gueule Tapée Fass Colobane di nuyu sama coach abu ak euh, DBA académie mooy académie bu ma génnee mhm. de passage maa ngi nuyu sama manager Momo Sène euh, man moom xam nga doomu Gueule Tapée Fass Colobane la acca góor boo ne doomu Gueule Tapée Fass Colobane kon dañuy wax ah, jege nga lool fi nga xam ne mooy Médina tey ah, kan mooy Gora kamara euh, man euh, je suis euh, damay joué équipe nationale Sénégal ma depuis daaw la nekkoon sama première sélection maa ngi dëkk Gueule Tapée mais Médina la la la foowe donc ñaari côté yëpp si man la bokk waaw Italie laay joué. voilà Italie ngay joué mais balaa ñuy dugg ci li nga xam ne mooy Italie bi tey fi nga xam ne ay Sénégal ndax yaa ngi fi doon pratiquer li nga xam ne mooy basket wala. Euh, waa au début boxe laa doon def comme sama papa. mais après euh, ci laa commencé basket bi mu gënoon ma passionné ak sama taay donc euh, ak ay nit yu ma yu ma aidé poussé ma envers le basket. ñoom ñoo gën a tax nag ma dugg si. Mm. après bu ma jógee. bi ma commencé Sénégal petit petit la après la dem Italie. Mm. donc façon Sénégal. Mm. mais am nga ay club yoo jaar fii ci Sénégal. Euh, jaar naa ay club mais mosu compétir ma euh, defe naa peut-être cadet. Mm. jaar naa GA. à part la jaar ak euh, académie bu tudd DBA. Jeddah Basketball Academy. après après ainsi nga dem ci li nga xam ne mooy émigration. Euh, fay la ca Italie ndax tamit basket moo la fa yóbbu woon wala. waa basket moom fa yóbbu woon ak étude mais euh, de tous ñaar maa doon def ñaar yëpp mais basket bi leen gënoon privilégié en fait donc du coup euh, après ça a donc mu continuer ci basket bi en même temps di jàng di sama jàng jeexee avant muy jeex la signé professionnel donc. mais mais intégration bi nga xam ne def nga ko ci biir euh, club yi en Italie tamit euh, ci ban club nga njëkk a euh, dem. bi ma demee Italie club Euroleague laa njëkk dem Virtus Bologna. Bologne quoi mooy mhm. foofu laa njëkk a dem au début nag dégg moon italien après ça a été difficile langue bi mhm. pour man te boobu j'étais un peu dama jeune woon en fait pour mun a comprendre tout mhm. mais avec l'aide des coachs et tout j'ai réussi à faire ouais. ban année nga dem Italie. maa ngi dem Italie 2017. 2017 2017 laa dem Italie. âge bi âge bi fan la tolloo. 16 euh, ans. 16 ans 17 ans. commencé basket commencé naa basket deux ans avant may dem Italie. d' accord d' accord intégration euh, ci biir club bi foofu nan la demee ndax euh, au début c' était difficile wala. waaw c' était difficile comme comme tous les débuts comme début yëpp da doon métti. ndax déjà déggu moon langue bi et day métti pour nga jouer ak équipe boo xam ne tamit déggoo li ñuy wax donc du coup métti woon na trop pour man école bi sax moom ma xaw a aidé tuuti ak langage bi après laa doog a adapté woon mais euh, métti woon na trop ci booy quoi en samay parents tamit dañ mu sori woon donc du coup amoon aide amoon xarit ndax amoon nga fa tamit ay ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi woon ci club bi wala. non ah, man maa nekkoon seul sénégalais bu nekkoon ci équipe bi. bu may après sa début sa début ci li nga xam ne mooy championnat yooyu nan ngeen ko doon dundee. Euh, métti woon na trop premier année yi moom métti woon na trop euh, comme man maa nekkoon seul noir bi nekkoon sama équipe. da doon métti pour ñoom ñu adapté wu si man ak man dem ma adapté wu si ñoom moo donc euh, yombul woon quoi mais au fur et à naa dugg bokk ak ñoom même kii bi. tey au bi yaa ngi koy wax ah, metti woon na tey ñoom lan moo leen gën a impressionné ci yow wala motiver leen tey ba ñu jël góor a teg ko ci benn niveau bi. Euh, ñoom euh, seen manquement lañ doon seet mooy peut-être jour bu explosif ak ak vitesse yi nga xam ne peut-être da leen day manqué yenn ak doole bi nga xam ne day manqué yenn boy yi fay basket à mon âge mm-hmm. donc euh, voilà mm-hmm. ils ont insisté voilà tey nga am ay performance ba ñu gis la euh, Sénégal gis la convoqué la euh, li nga xam ne mooy en équipe nationale sa première convocation équipe nationale. waaye sama première convocation l'année année passée woon na. année passée. affaire bu grave genre je m'attendais pas sax dama ñëwoon vacances comme année yëpp. et puis buñ ma wooyee c'est ce que loolu laa doon xaar pour temps yàgg en fait donc. kontaanoon naa joué ak Sénégal ba dem ba final en fait bi ñu demee final la ñuy doog a perdre match à deux points. dernièrement dernière minute match bi la ñuy doog. dundee ko naan. <laughs> pour man loolu su ma ko gagné woon en fait c' était rêve buy réaliser wu la quoi. mais dommage que ñu perdre ko foofu. Mm-hmm. nga ñëw en vacances à Sénégal da nga ngi dundee vacances yi. waaw chômeur lañ chômeur lay nekk mooy chômeur mooy si le joueur di performer wu euh, euh, renforcer yenn lacunes yi. lacunes yi mu am si saison passée pour mun a get better mooy évoluer en fait donc euh, off saison rek nga koy mën a dem mooy bu saison bi jeexee nag biir saison li nga liggéey rek ngay ngay renforcer waat mais off saison ngay mun a dugal yeneen affaires yu bees renforcer waat partie yu faible yi weak side yi tey euh, ñu fekk la ak coach yi tey lañ ngeen gën a liggéey explosivité lañ gën a liggéey si euh, tey euh, jour explosivité lañu amoon ak euh, puissance. donc mun nañ doon mun nañ doon tey ku wax basket wax NBA ndax ak góoro tey mu ngi rêvé dugg NBA. sama moo nekk sama rêve depuis tout petit mais xam nga yow tamit boo gis étape par étape la maa ngi maa ngi siy liggéey am ñi may encadré tamit ñu ngi siy liggéey bu ko yàlla tuddee rek incha allah ñu ko yàgg. góor am nga ay projet ici au Sénégal ay projet pour yëkkati basket bi. waaw waaw damay maay prévoir benn camp de basket ak euh, ay projet yoo xam ne bokkul ak basket. donc euh, mm-hmm. mais boo xam ne Sénégal tamit dina si sentir boppam. Euh, commençant par peut-être mën na nekk lutte commençant par sport basket bi may def. ak mm-hmm. ak football. vu que ce sont les trois sports les plus suivis au Sénégal. Mm-hmm. mais tamit maa ngi dégg Gora dafa nekk ku social waaw dégg nañ ci wàllu social bi lu bëri Gora di ko def tey du la ci posé. waaw loolu loolu moom peut-être am na ndax euh, li ñuy naan yàlla day jàllale wërsëgu nit si loxo nit mm-hmm. ku ñu jox rek da nga war a joxe peut-être sama wërsëg seen wërsëg ñoom si man la nekk man sama wërsëg si tubaab yi la nekk donc damay jël seen sama wërsëg man jaar si sama loxo lay jaar pour ñoom ñu jot si donc loolu la rek loolu laa nekk di génnee nii. Mm-hmm. boo dem conseil li nga xam ne mooy la jeunesse lan lay doon. Euh, on voit beaucoup d' évolution ñu ngi évolution yi bëri ci jeunesse Sénégal donc euh, commençant par vous affaire bi rafet na trop émission bi déplacement bi ñëw bu fii teel a yeewu bi yooyu yëpp donc euh, c' est important donc li mu leen di conseillé mooy gën a jàpp rek. ki la liggéey incha allah sa dernier mot. sama ginnaaw maa leen nuyu yéen di nuyu waa saal bi ak ñu fi dëkk ñëpp ak euh, Gueule Tapée Fass Médina ak fu mu dëkk sama papa ak sama yaay nuyu xam nga di leen kii si déplacement bi xam nga. ñaxaale nga si sax <laughs> entraîné nga si na. <laughs> d'accord merci Gora. d'accord merci à vous. voilà merci beaucoup chers internautes euh, Gora Camara international sénégalais de basketball moom la ñu jël bu defee rek dañu di joxaat rendez-vous ak beneen champion. jaa ngeen jëf. jaxate la